yow mii di seetaan dalal ak jàmm ci chaîne bi di Tivaouane Tawfekh bul fàtte abonné ci chaîne bi di Tivaouane Tawfekh aimé vidéo bi commentaire ngir nga jàpp ci liggéeyu chaîne bi di Tivaouane Tawfekh nga xam ni Tawfekh rek la leen di jox yow mi nga xam ni da nga am programme wala lu mu mënti doon wala marchandise te bëgg koo siiwal man nga jokkoo ak chaîne bi di Tivaouane Tawfekh ci numéro yi mën nga ñu fekk ci TikTok Facebook Instagram ba ci sax YouTube. maa ni Tawfekh rek ngeen di dégg ci lépp lu jëm ci seen wàllu wér bi yaram ndax suñu produit Tawfekh yi nga xamante ni ay produit bio naturel la yoo xam ni ci lépp sunu réew lañu ko defaree wa tawfeex ci lan tawfeex ci walu néegu sëy tawfeex ci wàllu mbixum siti ba ci tawfeex ci wàllum hémorroïde tawfeexu sëy bi moy produit bo xamanteni mo soxal képp ko am jafé jafé ci néegu sëy néew kattan jeex na tak boo ko fi nga tok 10 minutes avant rek da ngay dégg jàmm soxna ci contane nga contane néegu sëy bi neex néew kattan ci réew mi jeex na tàkk ak tawfeexu sëy bi lal ko légui joni joni légui muy bax légui cay tawfeexu sëy bi ak tawfeexu ndox

rafet na yàlla na ko yàlla gën a rafet jéggalu itam xaw nañoo yéex a yëg ndax dafa am mbokk moo woo ci téléphone xam nga rek kàddu yi jitte di jóge fu nekk di dem fu nekk di ma wax ay mbir ma di ko leeralal nag ni ko déedéet wax ci demeewul noonu man Moustapha lu leer lay def lu wér lay def dafa ñëw yónni jarbaatam jarbaat bi sama jarbaat la comme man ndax noo bokk sëriñ ko bi mu dikkee ni ma sama mag nee na dafa bëgg sama nijaay dafa bëgg a ñëw seet leen ziar sëriñ Babacar ziar rawdo su dikkee nee dafa bëgg bu ca jógee dem ca ëtt tànt ba ma ni ko rafet na ndax daan na ñëw fii ba delluwaat ci këram te du ma ko yëg daan na ñëw def lu ko fi neex waxtaan lu ko fi neex mu wax ko fi dellu dem di du ma ko yëg mm. kon su demee tey bi ko jaaree ci man di ma yóbbante dafa mm. rafetal waaye ni ko fii kërama ëttama ëttumaamam su ñëwee la tey aussi su ñëwee na fi toog mm. lu ko neex na ko fi def la des nag doon naa rafetlu mu jël téléphone am woo Cheikh Tidiane bu Serigne Mansour woo Serigne Babacar Abdoul Aziz ndax ñoom ñaar ñooy sama kilifa fii ndax ñoom lañ ma boole ah xale ba ba mu demee xëy na waxu ko lam ko war a wax yëpp waaye man lii wax naa ko ko te moo gën a rafet ndax penc mënoo faa gëj fukki at xamoo lu xew ja penc ma sa yoon newu fa mm. xamoo ku xiif xamoo ku mar mm. xamoo ku ku gën a dul mm. nga xëy xëy def lu la neex xëy xëy ñëw yaa ah, dama fee bëgg a ñëw def naa li ma war kon daf nuy incriminer nun ñun fii li ñu fi war a def rek la loolu lay soo doo ma tardel wax jooju nag di ko expliqué kilifa gi ma doon woo. moo ma xaw a tardel moo tax ñu yéex. wàcc si ñu ngi koy jéggal ñëpp. waaye ñu ngi ñaan seen ziar yàlla na ko yàlla nangu. waaye lii ngeen xam ko dafa gën. dëgg la dëgg la dëgg la. li ñu wax naan joŋee ju sawar. Mm. tey wax. Mm. fexe ba bu mu la gën a sawar ci wet bi lu mu wax nga xam ni loolu du dëgg nga wax ko ñëpp ba xam ni noonu la nekk kon yàlla na leen yàlla fay incha allah kër gii ëtt bii duñu fi def dara loo xamante ni dana yées li fi sunu wéy di doon dañu doon rafetal di def rek moom la ñu nekk di def waaye noonu la fi yàlla teg yàlla na yàlla boole jàppale